نعم القلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا سكرا أليم ينزيلا هدى لزيد تعمدني أكرم بذلك الكتاب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أباه طريد سحسرتنا والندم وكل شخص الحال شهيدا بتوبات الأفراد من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويحتوي الفوز قيدا دع عدمة من لقاء ندب اليمين بإذني رب العالمين هدى حاوي الأقوام وهو الذي من أطار أن هو ما تدبر فيه عصى ربا وارى أضحكة عبد المهيمن إلى سوانا سأزينرانا والتكفنا الإرمان والقسران برأني باخي من الأمراض وكب من أنكر باهترادي لو شكوري على آياتي هبدا خديم الفاس بالآيات أشكر شكر الذين شربوا من أسبه وللجنان خربايا وسؤايات لا ترى خير mujisatan baanat li usni xayri Cheikh Abdou Khadar pankum yàlla samaam waajun ku duppi faw gëm yàlla barsàq mooy sunu imaam waajun fu jiite yomal du jàpp noonu la saare ak a ñaanal képp kuy sol sa dal te lislaam tax di yëkkati kàddu kàdduy cant ak kàdduy soññe kaddu yi sax réy ci noonu waaye sëñ jili daa baax rek waaye sëñ Babacar mii sax bu ko joxoon mu mën a wax lu ñëpp mën a dégg noonu yi la ñuy siyaare sëñ Ismaïla noo ngi koy siyaare bu baax ci màggal gi te di ko ñaanal mu yàgg koo def barkeb Seexul Xadim jii li nag moom day am murit ba noppi di taalibe bi sëñ Tuubaa mën na noo wax ci moom lu bari ndax bu nuy wax ci moom duñ génn sëñ Tuubaa benn yoon mën na noo wax ci moom ni sëñ Jiile am murit la te mën na noo waat ni ab saadix la ma damay faral di wax naan man ni ma xamee di ni ma xamee ni man dama bëgg sëñ Tuubaa ci xasaayid yi laa ko xame te moom it mën naa koo jaarale ci yoon woowu ndax jataayoo nañ du benn du ñaar du ñett du benn at du ñaari at du ñetti at te amul benn jataay bu nuy toog ba génn ko te duñ waxtaane Sëñ Tuubaa wala nuy waxtaane xasida yi léeg-léeg bu may werante ci nuuru daare ni mbaa jaalibatu sax mu nekkee ndakaaru yooyu moom laay woo téléphone kon nga xam ni moom daram génnul Sëñ Tuubaa yaakaar naa ñun ñi ànd ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk boo ko laajoon ci sëñ ji lim lay wax mooy daa bëgg Sëñ Tuubaa ndax euh, tur wi muy wuyoo rek wane na ko muy kennal borom Tuubaa te loolu doonu loo xam ni danga koy bëgg a tudd rek ñuy tuddee la ko looy jëf la sa digg ak sëñ Tuubaa sëñ bi defal la tawféex yi tamit ku bëgg sëñ Tuubaa la ak xasida yi bis bu toll nii nag di bisu sëñ Abdul Xaadir sëñ Ismaayila mii tuddee ko ko ab cëram la ko delloo ci sëriñ bi rek waaye nag ba ko ko sëñ ba ko ko sëñ Ismaayla miy tuddee xam na ne kilifaam ak ko tudde waaye suñ jiili mii daay jëf ni mu tollal ndax moom amul lu dul sëñ Tuubaa damay faral di wax daan ni ñun murid yi nga xam ne ay taalibe sëñ Tuubaa lañ doomu aadama nga xam ni jëmmam li muy riche riche ak li muy rëy rëy rëy bu dee murid bi nga xam ne day dund sëñ Tuubaa boo ca génnee sëñ Tuubaa ci ak ci ci ak dundam ak ay jëfinam dara dootu ca des ndax léppam sëñ Tuubaa la ci sëñ bi ngay dund di am jom ci sëñ bi ngay dund di am fulla ci sëñ bi ngay dund di am passeef ci sëñ bi ngay dund di wekk koo war a wekk ndax am njàngalem képp boo koy bàyyi xel noonu yi ngay doxe mooy sëñ bi nga xam ne loolu mooy civilisation bi sëñ bi di jàngal di def ci di def ci murit bi nga xam ne yàlla dimbalee ba ngay dund sëñ Tuubaa di ko yëg rek moom war ngaa sant yàlla ndax mboolem li sëñ bi di bëgg yaa nga ca danga nga cay ne te sëñ jiili mii ci loolu képp la nekk sëñ Ismaayla mii tamit mën na noo seere ci moom ndax yaakaar naa ñun buñ koy xam boobu melunu nii te it bañ koy xamit it melunu nii te bëggoon na mel nii yaakaar naa nii tamit bis bii maa ngi ciy doog ñëw yàgg na ma ko wax waaye ma ami ngant waaye ren sëñ jiili mi damaa dimbali ndax bi may woo di ma wax ne ma sëñ sëñ Ismaïla day daa daa mel ni lim def daa nduru tuddee waaye tuddeewu ma ko ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma dafa maa boole ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi rek te man loolu képp lay ñaan bëgguma di xëy suba jant so te du ma nekk ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi kon sëñ Ismaïla li mu def daf ma caa boole awma ma ak payam kaddu gi wax na ma ko kon sëñ Ismaïla sëñ Jili mi ngi lay sant bu baax mu ngi lay gërëm. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakhal Bachir di ko ñaanal lépp loo xam ne naal na ko ci yoonu sëñ bi mu am ko nam ko bëggee ànd koog taalibe sëñ Touba yëpp. di ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadar sunu borom may ko fanu gudd. ba lépp loo xam ne naal na ko liggéeyal Cheikh Abdoul Khadr waajuram ba moom ko dam ko bëggee ak Serigne Cheikh Abdoul Mbacké moom Serigne Modou Abdoul Khadr ak njabootuk Serigne Abdoul Khadr yépp nuyu Cheikh Abdoul kennal bu baax a baax ak Serigne Gana Messere maxtar ak mbokki julli di fi teew yépp muy njabootuk Serigne Touba gi nekk sama ginnaaw xarit yi nga xam ne ni ñu ngi sama ginnaaw damay bañ a tudd kenn fàtte ndax ñépp rek samay nit lañ te xam naa seen jataay te teg naa leen bët waaye nag damay bañ a tudd kee di bàyyi kee di nuyu nag waa daayira génération génération surtout imam ak daayira daaru rahman ak daaira bu Touba Mbour te ñu tuddee ko ku yaakaar sañ Touba te muy dëgg ca moom ak waa Isin Galaas ak waa Ndindik sëñ Fàllu daayira bu ne ka nekk ca bopp rek buñ ko tuddee mën naa ñu tuddee ñëpp ku mel ne sëriñ Daam Mbay ak soxna Mariam Jéey ak kuréel gépp ndax daa bëri kàngam yoo xam ne damay bañ di juumaat ci tudd gi waaye waa génération surtout imam yëpp ñu ngi ñu ngi leen ñu ngi leen di sant bu baax di nuyu nuyu daayiratu daaru rahman di ci jiital soxnaante juf ak sëñ Ismaïl ak soxna ya ca nekk yëpp ak euh, sëñ Abdul Ahad bu dee bu usine galas bi sëñ Xaadim Ndaw bu dee Ndindik sëñ Fàllu sëñ Jili Njaay bu dee Mbuur sëñ Pap Fall te ñu naan ko Pape ak soxna euh, Fat Dieye bu dee Ndakaaru euh, sëñ Cheikh Ndiaye ak ñam àndal ñëpp kon bàyyiwuñu kenn rawatina kóllëre yi nga xam ne ñoo toog ci jataay bi maa ngi gis ñëpp damay bañ a tudd kër tur rek di bàyyi ñi ci des waaye ñëpp maa ngi leen jox seen wàccuwaay ak sunu mbokki taalibe yi toog nga xam ne ñii ña nga jógee ba sura ñii ñu ngi jógee ci gox yi nga xam ne dañoo fasanti ko képp ku ne rek jox naa la sa lo jël naa sama loxo bi jox la ko di la nuyu di sant bu baax ci déplacement bi ah di nuyu sunu waay jur wi muy soxna naata silla di ko sant bu baax ak sunu rakk soxna maam jaaratullaa di ko sant ci taxawaay bi ak képp koo xam ne ne ànd naag moom ci liggéey bi di sant ku mel ne soxna soxna Soda Camara ak képp koo xam ne nekk nga ci koñ bi te doon nab nabi ci liggéey bi muy góor ak jigéen ak mag ak ndaw rawatina suñu waajur yi nga xam ne ñu ngi ci koñ bi te bàyyi ñoog seenu njaboot ñu ñuy guddil di ñu bëccëgal ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp ñu fekkoot at yu bari di sant nag jëmm ju baax ji nga xam ne yàgg nañ lool yaakaar naa màggal ak sëñ Abdul Xaadir ya ma daa njëkk a def booba ñoo ko daa ànd nekk ci kër sëñ Abdul Xaadir ga ah, seq relation yu bëree bëri yoo xam ne yu am solo la moo tax kon biñ ko joxe cër bu mel nii mu nangul nu ko lool bég ci lool sant ci ndax bañ koy def sëñ Touba rek a tax ndax baatu kenn sëñ Touba yaakaar naa boo déggee ñu woo woo ci nit wala ñu tuddee ko nit sa xel day ca moom rekk lay dem loolu nag ca lañ ko doon delloo njukkal kon bu jëlee kàddu gu mel nii yëkkatiwaat jox ko ku mel ne sëñ daam Samb def na lu am solo ndax loolu mooy ak rafetal maam Cheikh Samb maam Cheikh ma maa maa maa ngi jégalu maam Cheikh maam Cheikh Babu maa ngi maa ngi maa ngi moom it mu doon nit ku am solo ku baax koo xam ne jataay yi nga xam ne euh, jataayu murit la dana fi dajale njabootuk Serigne Touba gi fële ca Ndakaaru di fa woote loolu nag comme Serigne na mi ngi ci jataay bi te bokki taalibe yi nga xam ne ku mel na sëriñ Bamba ak sëriñ Abdoulahat Kundul ak sëriñ euh, Abdoul Khadir Diagne ak sëriñ Ousmane Diouf dañ fi war a yëngu sëñ Gana Messere war a waxtaan ci sëriñ Touba te jataay bi daawut am loolu daaw wala daawu fi bari ñu bëri yuñ ci soppi lool loo xam ne àdduna mel noonu Paris escalier la li am solo ci àdduna mooy ñaan mujj gu rafet ak sa biir xol bi nga jiital ci sëñ Tuubaa te muy dëgg ci yow da nga ñaan lépp loo xam ne ni yaa ngi ko yéene def yàlla na doon li sëriñ bi bëgg te ñaan sa biirub xolit ne lépp lu may def it bu dee jëf ju bon la yàlla na ma ko suñ borom jéggal bu dee jëf ju baax la yàlla bu mu niin yéene ñépp lu baax lépp luy ab safaan nga jommale ko sa bopp wala nga bañ ko yéene kenn ci loolu lañ jéema nab na bi nekk ci kon njabootuk sëñ Tuubaa gi nekk fii ci ginnaaw maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp xam naa leen ñenn ñi bu événement yi weesoo ñooy dajaloo ñooy waxtaan kon xam naa leen bu baax ñeneen ñi it ay seex lañ ñeneen ñi sunuy xarit lañ ci yëfi biir waaru biir la kon nañu gën a góorgóorluwaat rawatina fi jamono ji toll man nag ab taalibe rek laay fase ne doon ba may sàngoo suuf ab taalibe rek laay fas yéene doon lépp loo xam ne ni jàpp naa ne ba ma ko defee te mu jëm ci sëñ bi dina neex taalibe yi danaa ci jéem a teg sama tànk su ma doxee ab diir gis na li ëpp ci taalibe yi neexu leen dinaa ko bàyyi ndax bëggub taalibe yi laay dàkk lu may def it sëñ Tuubaa laa jiital moo tax may wax ñenn ñi jokk ci man yàgg naa ko wax di ko waxaat donte wax ji nag du tàng tey wala du metti ndax comme jóge nañ fa ñu nekkoon nekkaat ci beneen yoon la may digal nit ñi nga xam ne yàlla dañoo boole yàlla dañoo boole boole gi ki koy téye na doon boole gu am solo gu baax bu dëgër ma ñun bu fekkee sëñ Touba ñuy xool ci ñun ñu fekk fee am màndikat boo xam ne ndaa màndi ba xamatut fi mu taxaw ñu di ko daw lu ñuy jariñ ci yoonu sëñ Touba dama jàpp ne ki yàqu wala ki nuru lu yàqu wala ki sànku wala ki nuru ku xeebu kooku lañu war a gën a mën a jege ngir suñ ay kattan ñu jéem a xool lañ ca mën a soppi loolu nag bari woon naa ci ay ayib wala ay gàllankoor waaye nangoon koo dékku lool ngir li may defar bu sottee ñoo xam ne am naa lu ma bëgg du ma dof loolu nag damay leeral képp ko xam ne ni yaa ngi ànd ak doomu aadama képp koo xam ne yaa ngi ànd ak doomu aadama ki ngay àndal bum bul bul bul xool ne daa mel ne yoon wi mi yoon wi muy jaar baaxul rek nga daw bàyyi ko ndax bu bu bu baaxaatee rek wala sëñ bi nam nam mu ci moom mu newaat cocc yow noo war a def xawma ko loolu li ma ci jublu rek muy bu kenn ànd ak samaroom morom àndub àndub intérêt mooy nañu ànd teg sëñ tubaa tax Ismaayla mii dereeti sëñ tubaa la de waaye doomu aadama kese la man naa muy juum di dëng di di di di di di def lu mu wurta def waaye lay rafetal ànd ma mooy nga xam ni kii ab jaamub yàlla la naa ko naa ko teete gunge ki ci lii muy def ba mu teg wàcc yoon we waaye ku jàdd rek ñu bàyyi la dara du ma sa taxaw loolu nag maa ngi ci soññ ñëpp muy lu ñuy téye doomu aadama na sëñ Tuubaa rekk tax waaw loolu dama ci soñ ñëpp man baax laa bëggoon bu ma jëlee weneen yoon woo xam ne jàpp nañu baaxut it baax rek laa bëggoon loolu loolu moom dama koy dama koy soññal ñëpp te it bu yàlla dogalaat bu yàlla dogalee la muy dogalit ah baaxoon nañ ne wax ne nit ñi buñ gisee mbalit danañ ko daw waaye boo defaree ba setit ñu ñëw daw tibb si waaye nag la sëñ Moodu Abdou Khadir waxoon laay waxaat rek suñ bët yi buñ ne jàkk mbooloo mi la ci ëpp bu fukk dee ñëw xam nañ juróom yi ci trikaas ak ña ci dëkkal waaye boo dajalee ñépp nag du sa doo sañ a wax lépp da ngay bàyyi ñëpp rek loolu nag faaw mu mat a leeral kon sëñ Abdou Khadir sant naa la bu baax a baax sant gi jëru ko woon ndax yow dañoo bokk sëñ Abdul Xaadir ki nga xam ne daa am fa ma teg lool muy sëñ Basiiru moom sëñ Abdul Xaadir di sa wëllëre nga am foo ko teg lool waxuma la sama jëmm rek waaye nit boo bëggee bàyyi mu bëgg la te dangaa bëgg sama bàyyi loolu rek doyoon na ak jàpp rawatee na teraanga yi nga fi indi waaw tur wi nga tur wi ngay wuyoo nag danga ma caa njëkk rek waaye su su ma su ma teeloon a xam tur woowu damay damay damay dama dama koy jëli kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di gërëm bépp kilif bu nekk jataay bi ak Cheikh Mouhamadul Fadilu njaay mi ñëw ci jataay bi léegi bu ko defee sëñ Gana Maxtaar mën a jàllale waxtaan wi rek ñu bañ a guddal ndax xol bu sedd la ñuy waxee te bu ñu waxee bu yàggee mën naa ëpp waaye loolu ma waxeen rek li ànd bi daal nay nay na koy sëñ Tuubaa jiital bu ko defee ñu bañ a xool ne kii daal nangam ak nangam yi xewoon ci ginnaaw ñu bari di ma daw xam naa ko bu baax waaye sëñ Touba man man xam na ne man bëgg naa ko sama biir xol bi <laughs> man man wóor na ma ci sëñ Touba ne man bu fekkoon bu fekkoon da leer sa biirub xol ne maam buñ ne bu fekkee bëgg sëñ Tuubaa dëgg moo nekk sa biiru xol bu fekkee wir na ne boo bëggee sëñ Tuubaa mu nekk sa biiru xol fa saa sa boo dee da nga dem àjjana wóor na ma sëñ Tuubaa du ma fanaan suba loolu moom wóor na ma loolu nag buñ ko buñ ko buñ ko comparé ak teggi doom jëmmi doomu aadama nii nag muy dox kooku nag ku matut lay doon léegi nag nañuy bañ a toppee ci matadi gi ñun ñiñ jàppee suñu bopp jàppee leen suñuy nit buñ juumee nañ ñuy orienté di ñu jege di ñu di ñu di di ñu gunge di ñu di ñu teete te yàlla rekk tax sëñ Abdul Karim mu sëñ euh, mu Seex Mamadul Fadal ay jamono noonu lañ ko daa def bàyyi faal yi mu yore woon dañ ko daa daw naan bàyyi faal yi nangam nangam coow fële wax léegi damaa gis ne léegi ku ku ku jekki-jekki ab ah, Baye xaritu xaritub sëñ Abdou Karim ab ah, Baye fal ngay bëgg ngir ngir jot yi sëñ Abdou Karim yaa ngi doon bonal lu baaxoon léegi sëñ Abdou Karim moom xam ne ni kii sànku na léegi te sànkuteem gii du xaala rasulillahi ndax ku jàngul mënoo koo leeral day naxtaan ba am la mbëgg rek man na gis naa ne yoon wi dama koo tàmbale comprendre nuñ ma tegaat ko ci suuf ñëwaat ci istixaama gi waaye na gis naa ne ba ma jëlee yoon woowo ku ma ca ku xamoon ne ku ma xam dëgg boo xamee doo ma ci doo ma ci yedd doo ma ci xas ndax kër sëñ ma di bés laa bokk te dañuy xiin bañu ko nag te waxuma ne dama ko bàyyi waxuma ne daa bon waaye nag damaa fas yéene liggéey sëñ Abdou Khadir ndax dindi rek rawatina na ku bañ kuy gàkkal dereb sëñ Abdou Khadir di ko jaarale ci man loola tax ma may daw lu bari kuy gàkkal derub sëñ Abdul Xaadir di ko jaaree ci man looloo tax may daw lu bëri loolu nag na ko ñëpp xamaale moo tax bi ma bi ma soppee yëf yi nit ku nekk lam méngool nga ko indil moo tax ma indil la bisub xasida sëñ Tuubaa yi loolu rek laa ci jubloon ndax bu doon bu xawoon a yëngu Nuuru Mbaay Fall doo fi jaar maa ko ma maa koy gàddu lépp bu ko bu ma xëyee nag coow yeeg wax yu ñaaw lépp ma gàddu téye waaw ndax day am man man damay xam lépp wax yeek waxi suuf yeeg yëpp maa ngi ko yëg daaw am na ku ñëw fii andi ab bëngoo dégg naa ci wax ju ne jubluwuma ci nag mer waaye dama ci dégg wax ju ne ab bongo te mu wóor na ma ci sëñ Tuubaa ne andiwuma ko fi joxuma ko ci ndigal daa jékki-jékki rek def coobareem maa ngi ñëpp a ci yem damaa jékki-jékki ko yaakaar naa am na ñu ko naqar lu ñu bari waaw est-ce que man mi mu ñëw def ko ci sama biiru baas gënumaa am naqaru xol googu ci laa jaar na lii jeex na lootul amati fii loolu laa ci jublu loolu nag day mat a leeralaale pour ñu xam ne ka fi ñëwoon man jë ñëwut sama ndigal xam naa daa gis mu mel ne yëfi Baay Faal mu jàpp ne luy kundung kundung dana fi jaar rek moom it ba mu waxee mu ne ma jéggal ma ngir jëmmi sañ Tuubaa ba waxee loolu laa fàtte la ma defoon bu ko defee nag gàddu tuuma ji nag man amut problème waaw waaye xam naa ne man ku bëgg sëñ Tuubaa la moo tax bi ma xalaateen luy neex murit yi mataan na jëmm ji naa wax wax ji wax ji man boo bëggee sëñtu Tuubaa jeex na te kii looloo tax ma jàpp looloo tax taxin ma bëgg ko yaakaar naa am na ku ko doon attaqué bokk naa ci ñu njëkk a def vidéo ne kii di ko attaqué naan da koy yéene ab safaan balaa diwén ñu xam kan mooy yore gàddu safaan bi nañ dem seetaan vidéo ba yaakaar naa laataa diwén ba mu ñëwee ci lañ ko duma duma yu metti bokk naa ci ñi ko sëñ bii xam na ci dara sëñ bi ànd sëñ gan yéene néeg la borom a cay fanaan tu ko xam ku bokk ci sëñ Tuubaa dëgg doo ko yéene ab safaan da koy da koy ñaanal rek te yàlla tax kon ñu ngi jéggalu bu baax du nuyu waa kër sëñ Jéeri waa daan yëpp ndax li ëpp ci mbooloo mi ñenn ñi waa kër sëñ Jéeri lañ dañuy sonn lool ak waa kër sëñ Daaru Xasan Njaay bëri nañ fi lool macha allah yàlla na leen yàlla defal jàmm ak tawféex ak sutura ndax lii mooy yoonu murit ñëpp benn lañ waaw fii xàmmewu fi kee mooy kee kee mooy kee li ëpp ci ñi ñi takk bat si waa kër sëñ Daaru Asan lañ moom daayira bu bees bu ñu ma defal fii ci Touba la euh, soxna Kumba jiite ko ak sëñ Xaadim mooy ay tut tànk ñoom boo leen demee ngeen gën a lu baax sant nañ leen euh, bu baax a baax soxna Moominatu Kebe moomit sant nañ ko bu baax yónni na fi ay ndaw euh, ñu ngi ñaan suñu borom yokk xéewal te yàlla defal ko jàmm barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Xarim Rasul li si des ñu dundal ko ay xasida ak waxtaan ci sëñ Touba boo defee képp koo xam ne ne yaa ngi ci biti ab baas biñ koy def ngir toog ci biir a tax waaw bu ñuy waxtaan ci sëñ Touba nag dañ daa dégg ñu ne fu ñuy waxtaanee sëñ Touba saytaane day daw kon képp ko xam nekk na ci biti nag day mel ne waxtaan sëñ Touba bi da laa ñor kon nañ jàll ci biir toog ci biir bu ko defee dund dundal sëñ Touba loolu maa ngi koy jox képp koo xam ne am naa kàddu ci yow rek nga ñëw ñu dundal sëñ Tuubaa tey bisimilah.